Euh, à partir du, 2 avril, euh, donc euh, effectivement, le département entièrement a été sous confinement par la déclaration du gouverneur. Il faut dire que c'était une situation inédite, donc forcément assez complexe, assez compliquée pour la communauté. mais on va dire qu'avec beaucoup de communication, mais aussi, on va dire, peut-être avec l'intelligence, on va dire seulement humaine, les gens ont finit par comprendre très tôt d'ailleurs que euh, c'est ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour déjà que la pandémie euh, n'ait pas cette ampleur-là au niveau du département de Goudiri, mais aussi au niveau de la région de Tambacounda. Parce qu'il faut dire que les, entrées et les, et les sorties, si ce n'était pas surveillé aujourd'hui, certainement on n'en serait pas là. Euh, ça a été compliqué pour la communauté parce que euh, déjà, il fallait se, se, dans les maisons à partir de 20 h euh, pour certains, peut-être qui, à partir de 20 h déjà commençaient à aller chercher à, manger le dîner. C'était compliqué pour les enfants, n'est-ce pas Et surtout pour les enfants talibés qui aussi, à cette heure-là, allaient demander à, manger. Donc ça a été, on va dire, assez compliqué pour, pour tout le monde. Et aussi, les sorties euh, par exemple, au niveau du département, sortir pour aller à Kidira ou aller à Tamba ou aller à Kwachari parce qu'après, même au niveau intercommunal, en fait, il n'y avait pas d'autorisation de sortie. Donc, toutes les communes étaient fait euh, fermées sur elles-mêmes. Et vous savez, euh, on vit dans la région naturelle Bundu, où on va dire tout le monde est parent. Et on s'est rendu compte en certains mois que c'était même plus possible d'aller présenter en tout cas des vœux ou des condoléances euh, vers une, même famille qui était de l'autre bout de, la commune. Donc euh, voilà, c'était très compliqué euh, pour, les gens, mais réellement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de communication, avec toute la communication en tout cas qu'on a pu faire autour de la pandémie, autour de la maladie, les gens ont compris que réellement c'est ça qu'il fallait faire.

waaye nag tey lu nguur gi daal lu wax rek ñu ngi ko doon appliqué ndax bu ñu waxee 8 heures dañuy wàcc 8 bu na 20 heures ñu wàcc 20 heures bu na 23 heures ñu wàcc 23 heures vraiment woon na daal métti woon na suñu côté bu baax a baax a baax. nu meeg njaay moom demoon ba taxaw ndax wax dëgg yàlla demoon na ba taxaw ndax boo daa jour ay 20 kilos di jour ay cinq kilos xam nga boobu métti woon na léegi nag alhamdulilah rabil alamin ñu ngi sant yàlla daal. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. daawuñu dem Tamba daawuñu dem Kidira daawuñu dem fenn recevez daal lan doon def. ñu toog wàcc ñibbi toog suñu kër loolu am lekk loolu amut xaar yàlla waaw wax dëgg yàlla métti woon na daal moom métti woon na torop moom. Goudiri vraiment ñoom ñu baax lan ndax bun na leen toog leen ñu toog su na leen tëdd leen ñu tëdd wax dëgg yàlla am Sénégal Goudiri moom macha allah ndax ñoom amuñu benn discipline ndax wax dëgg yàlla lu leen wax rek dañ koy def waaw wax dëgg yàlla population bi moom vraiment moom. toppatoo nañ affaire bi leen wax bi wax dëgg yàllam kenn du génn kenn du tëdd ba instant bii ñuy wax ak 23h ñoom ñëppay tëdd wax dëgg yàlla am ñun ñaa ngi sant yàlla nag sant yàlla bu baax di gërëm euh, préfet ak euh, jeunes yi Goudiri ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di di leen ñaanal yàlla. ndax buñ la forcé daa fekk tëddoo te buñ la fekkee sa kër buñ la doore yaa tooñ wax dëgg yàlla am bu tëdd jotee daal danañ tëdd ba 23h bii dañuy tëdd vraiment moom xale Goudiri moom macha allah. affaire bi nga xam ne yow tàmmoo ko yëgoo ko jékki-jékki rek ñu ñëw ñu ne ko euh, benn cas génne na si département bi ñu tëj euh, département bi loolu tamit euh, nekk na benn affaire bi nga xam ne métti woon na si si si si ñun ñi dëkk fii si biir département bi surtout si côté demalante bi donc comme boo xoolee fii nii ñu ngi nekk si si Bundu donc Bundu ñun yëpp. ño bokk euh, benn famille la euh, des fois da ngay gis euh, yow sa famille bi nga xam dina am problème da ngay am galankoor pour mun a dem foofu noonu loolu tamit nekk na bi nga xam ne métti woon na mais aussi encore lépp loo gis rek sant si yàlla et comme ni gars yi ni ñu ko autorité yi ni ñu ko defee mooy le gouverneur de la de la région ak le préfet du département pour confinement bi bu mu amee nii au niveau de Goudiri. sant nañ si yàlla gars yi respecté nañ ko nu mu méttee méttee yëpp nga nga war a dem nga dem seeti sa mbok wala nga dem ziare sa mbokk loolu amuloon et donc euh, ñooñu euh, ñu dem ba population bi respecté affaire boobu noonu loolu moo ñu indil tey résultat bu ñu nekk fii nii parce que euh, bu mu laalee ñetti dëkk yooyu noonu dañ doon ragal mu ñëw mu laal euh, yeneen communes yu des yi wala mu laal mu egg ba fi nga xam ne mooy au niveau de la région wala mu egg au niveau de Tambacounda wala mu egg au niveau de Bakel et donc mesures yooyu euh, buñ ko jëlee euh, gars yi ñu ngi si doon ñaax ñu ne mesures yi métti woon na mais li nga xam ne loolu loolu moom moo deful moom moo waroon lu gën essayant comprendre ba nga xam ne instant bi résultat bu ñu am ñu am ko te loolu tamit sant si yàlla bu baax et puis encore di si gërëm population bi. yi ñu njëkkee annoncé le premier cas de malade de Covid 19 dans le département de Goudiri euh, nit ñi tiitoon nañ lool ñu boole ci loolu également ñu couper complètement Goudiri du reste du Sénégal kenn du dugg kenn du génn euh, nit ñi amu ci ñu ci woon pexe quoi nangu nañ ko parce que un dañu ragaloon maladie bi deuxièmement nous foogoon également à juste titre que mesures yi autorités yi jël moy tax ba maladie bi mën ñu mën ko yemale fi mu baña law ci département bi té gëm peut-être mesuré yooyu baax trop parce que gis nañ né maladie bi lawul ci département bi actuellement département est ngi ci zone verte et ñu ngi santé sant yàlla di ci euh, mais également di santé autorité euh, territoriale yu Goudiri yi yoo xam ñoo mesures yooyu commencer par le gouverneur et le préfet du département de Goudiri et les populations également ñu ngi leen parce que respectent nañu mesures Mais métti woon na parce que gis nañu ay nous waa yoo xam ne dañuy am soxla bu jamp dak Tamba te duñ ko mëna a dem faji à l'image de nos parents retraités de la France yo xam ne seen xaalis ci banque lay jaar te Goudiri amul banque pour ñu déplacer wu dem Tamba c'était un problème donc muñ ñu loolu toog ba tey yàlla saafara na affaire yi ñu ngi dem ak dikk. à dire vrai ici y' a pas eu beaucoup de problèmes bon je pense que tey boo demoon interview peut-être euh, commandant de la brigade dina la ci wax lu bëre quoi parce que les jeunes ont accepté le couvre-feu il y' a pas eu beaucoup d'incidents. à 20 h tout le monde reste chez soi peut-être dina ci am ñenn ñu ñuy fekk ci mbedd mi parce que souvent ñenn ñi xamuñu luy couvre-feu ñenn ñi ils sont pas au euh, ils ne sont pas bien informés te xamuñu réellement lan moy couvre-feu donc euh, incident est mom du mais euh, avec peut-être le professionnalisme des gendarmes ils l'ont géré jëmul kaw indiwul yenn incident yu